sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa radiya allahu taala an alxalifati alazam mawlana cheikhina wa wasilatina ila rabbina abi lfuyudat abi isxaqa cheikh ibrahim ibn cheikh xaaj abdullahi radiallahu anhuma assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu uh, ginnaaw sant yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa beneen yoon maa ngi nuyu sang yi fi teew yëpp te ñi fi teew ñëpp ay sang lañ ndax ki waral jotaay bii di Cheikh Mouhamadul Mamoun di sang bu mag di ku màgg daraja ci yàlla di ku màgg daraja ci nit ñi euh, waaye balaa maa sori maa ngi nuyu Cheikh Ibrahim eh, xalifaam di nuyu Seyda Fadel bu ma nuyu naa mboolem ay nuyu naa mboolem soxna yeeg ci turam eh, Cheikh Mouhamadul Bachir bi ma waxee ne ma ñoom dañoo wax ne man lañ ci pare yi laa bokk man lañ ne ma ne ko déet yow yaa leen waroon a parrainé sëñ Mamoun loolu laa foog ne noonu la noonu la war na tëddee waaye ba tey itam baax na eh, Cheikh Abdoul Baqi conférence bi mu def li mu wax ci sëriñ Mamoun loolu doy na sëkk daanaka kenn mënu ci dolli dara am na benn mulaaxasa bu mu la bëgg a defal rek ci li nga doon wax ci Cheikh Ibrahim suñ mbokk bi mu jëlee askaru tarbiya ci Seydi Ali 1963 dafa fekk Baye war ñoo yóbbu Mauritanie ci fan yooyu ñaari fan ñetti fan mu dese ci Seydi Ali xam naa da doon jaar beneen bunt boo xam ne foog na ne man na koo nax mu ne ko Baye kat daf ñu yóbbu Mauritanie mu ne naa ñëw nga defal ma bu gaaw bi <laughs> Baye si ne ko ah dafa am bu gaaw defal mu defal la ko moom moo ko fi indi defal mu defal la bu gaaw bi <laughs> loolu la loolu la noonu noonu noonu la demee alaakulli xaalin eh, sëriñ Mamoun. Euh, jëmm la joo xam ne li ñu ko li koy fàttali dafa bari charret bi ñu toog rek mbedd mii rek day fàttali ci moom day fàttali ci moom lu bari jotaay bu mel ni bii ñu fi dajale ak yeneen i jotaay yeneen i jotaay nit la koo xam ne léppam iw la jëmmam def koo séddale woon jaamu yàlla yëpp daf ko séddale woon jaamu yàlla yëpp ku tabewoon la ci boppam ku tabewoon la ci jëmmam njëkk mu tabe ci alalam taalibe bàyyi la loolu dafa mel ni boo koy wax dafay mel ni da ngay wax ne géej gi am na ndox daan na wax te daf koo jëfee doomi bàyyi bu ñu xamoon ne man seen jaam laa kenn ku ne ci ñoom dangay sol ceen sama baat omat oh, ma jëmee ma fu la neex te loolu daf koo jëfee ñëpp gis ko daan na wax wax boo xam ne itam pour nga xam degré fim mu leen teg te ñu bari dégg nañ ko ci moom bu ñuy wax ci affaire yi xilaafa yi daf daan wax mu ne suul fukki suma fukki fukki yi bàyyi ma suul leen door a xalifa loolu yàlla bu ma ko yàlla na ci tartib boo ko seetee booba moom dixième la waaye wax boobu toujours daf ko daan wax nga gis ne moom dafa mel ni mu gudoon nekk xalifa ndax loolu daf ko daan ñaan suul ma fukki damay bàyyi door doon xalifa loolu yàlla bu ma ko yàlla na too loolu wax na ko ba tàyyi dafa naa tabe ci sa bakkan nag mën ta passé foofu loolu yu bari mënuñ koo ñaan eh loolu yëpp mbaaxam lay tegtalee Abdul Baaqi wax nga ci ci sa muxaadara ne mooy doomi baay bi njëkk a juddoo hôpital dëgg la waaye itam yim def ci ay yiw kenn mënu koo lim loo tudd rek sëñ Maamun def na ci yiw loo tudd rek lu mu mën a doon rek boo gestoo da ci gis loxoom xëy na juddoo gi mu juddoo gi mu njëkk a juddoo hôpital santé def na ci loo xam ne man bu dul état xamaguma ko def fii ba ci njëkk dafa am benn bés ñu nekk hôpital ñu nekk Dakar maag moom ci hôtel Novotel boobu daraa ngi ci loxoom hôpital El Hadj Ibrahima Niass bii def appel di di tawat ne ne dara nekkatul ci hôpital bi même maladie sax amatul lu ñu leen toggal pour ñu lekk ñu ne corde yi bu ñu opéré nit wëñ ñu koy ñawe ñawee sax amuñ ko maa ngi fa maag moom man damaa bëgg déglu rajo naka jekk maa ngi déglu rajo bi ma déggee wax jooju ma ma génn ñëw fekk ko chambre am ne ko hôpital El Hadj Ibrahima Niass laa doon déglu léegi dañoo tawat ne dara nekkatu fa luñ lekk sax malade yi amuñ ko mu ne ma ah ma ne ko waaw mu ne waaw baax na bon danaa xalaat lu ci war a def am na ñu diisoot wax ak ñoom ñu ne ko da ngay jënd ay garab yóbbu. mu wax ma ko ne ma am nañu ma naa naa naa jënd ay garab yóbbu fa nangam nangam nangam nangam yow lu ci sa xalaat ma ne ko mën de gisuma loolu mu ne ah, ma ne ko nit damaa gis ne boo koy dimbale da koy laaj fan la soxla ndimbal ne ko léegi nañ def nii hôpital El Hadj Ibrahima Niass yàlla dogal na ña fa nekk ñëpp ñi ci ëpp ñëpp ay taalibe lañ docteur Medine Thiongaan ma fa mooy médecin chef bi dégg nga ma ne ko Adja Bintu Ndaw ma fa moo jiite sage-femme dégg nga soxna xadifaal ma nga fa dégg nga ma ne ko ak béti caam ma nga fa ñooñu ñëpp ma ne ko doomi Medina lañ ay taalibe lañ ma ne ko bàyyi bintu ngi dégg li may wax ma ne ko bàyyil ma laaj bintu ma oo bintu ndaw téléphone ne ko sëñ Mamoun dafa dégg seen tawat hôpital bi daf ci bëgg a def geste am ñu ko xelal ne ko na jënd ay garab yóbbu dégg nga ma ne nañ la laaj yéen nu ngeen bëggee li mu ne ma bàyyil ma laaj ma laaj samay supérieur moom bintu loolu la ma wax mu ne ma bàyyil ma laaj samay supérieur mu diisoog ñoom laaj leen ñu ne ko ñun suñ problème du médicament rek dégg nga danañ jënd médicament waaye am na leneen lu ñu gën a soxla même personnel bi am na ñu fi liggéey ñoo xam ne sax mënuñ leen fay amuñ leen fayee bu fekkee mën nañu jox espèce moom ñu gënal danañ ci régler problème yu bari ca yooyu jamono dafay wax ni yàgg na mu jël mu jël 10 millions ci yooyu jamono mu jël 10 millions ñu oo sëñ aadi radiyallahu anhu jaaree ci moom xam na protocole mu wax ak mu itam administration bi ñu jël RTS yóbbu bi ñu ñëwee sëñ aadi lañ jaar dégg nga Cheikh Awa Seck mi ngi nii di nu mu may dégg xaalis bi ci loxoom la ko sëñ Mamoun teg ñu ñëw ci buntu jeunesse si foofu ci escalier yooyu fa lañ taxaw keroog RTS jël ko dégg nga mu jébbal leen don boobu loolu la njëkk a def ci santé la ca tegu. mooy 2003 mu génne plus de cent million oote ci euh, King Fahd fa la defee cérémonie bi Omar Thiam a ngi nii témoin la ci li may wax enveloppe bi dem na ba mujj gi sax kenn dem na ba lu cent cent cinquante millions hôpital yi ci réew mi yëpp poste de santé yëpp yëpp yëpp ba ci hôpital régional bu Kaolack bii ak même région bi hôpitaux yi fi ne yëpp ak dispensaires yi ku ci ne am nga ñii 3 millions ñii 1 million 500 ñii 1 million ba mu daj loolu laay wax ma ne ma ne xamaguma ko def man ci santé bu dul état bari na bu dee aj màkka duñ ko wax bu dee yeneen duñ ko wax daf daan wax mu ne bàyyi daf ko ne ko benn bés ne ko ne nga góorgóorlu te bàyyi sa xel ci nit ñi di def ci yoon lu baax ba keroog boo génnee àdduna ñëpp jàpp ne àdduna tukki na. mu ne mu ne mu ne loolu la ko bàyyi wax eh, loolu jëmal na ci lu bari moom utitoon xaalis ngir xaalis déedéet def ko doon ut ngir faj soxlaa jaam yàlla yi amul ci xejat seen nag ku ne rek lay sa chance ci moom lay sa wërsëg ci moom waaye xàmmewut kii wala kële faj na ñu bari ñoo xam ne da sowe na seen bakkan yi ñu bari takk na sëy yu bari may na ay kër yu bari may na oto yu bari yaakaar naa ne lim bu réy bi mu njëkk yóbbu Màkka fii lañ ko organisé ci buntu kër gi 92 la waxoon personne waaye dem na ba jege 200 personnes Omar Thiam min ñii ñoo amee woon ndakam tudd yeeg yooyu te ku mu yóbbu Màkka puso sax doo ko jënd lépp moo koy gàddu ak la ngay indaale comme sëriñ ca bugguma sori ci wax ji noonu sëñ Maamun comme li ma wax nii rek ne sëñ Maamun taalibe Baay la wala sëñ Maamun ku tabe la wala ku baax la loolu mu ngi mel ni nga ne géej gi am na ndox ala kulli xaalin euh, jaam yàlla bu baax la lii def nii sunu ci ñooy wax ne kullu maa yajmaul quluba ala llahi lii lu baax la lu rafet la sunna su rafet la yàlla na ko yàlla saxal ci njabootam ñi ngi gërëm mboolem ñi fi teew ñëpp ñi ma fi gis ren ñii ñëpp gisoon naa leen fi daaw yàlla nañ fi toogaat déwén ci barke Baay radiyallahu anhu ñu ngi gërëm njabootam Cheikh Ibrahim ci turam di gërëm itam eh, waa waa dëkk bi yëpp sëñ Maamun mbokkam ñëpp la xaritam ñëpp la ñëpp ko sopp ñëpp la soppoon yàlla yàlla teg loxoom ci ci ci njabootam yàlla gën a fësal ay jëfam yaa rabbi yaa laaw bàyyi rek la bugg bàyyi rek la liggéeyal te bàyyi moom nee képp koo liggéeyal inna alladina xadamuni naalu muraadahum sahadatun wàllu la wax te loolu ñëpp gis nañ ko e yal yàlla yokk ay martabaam yal na yàlla yokk ngërmaaniyam taalibe bàyyi la yaayam taalibe bàyyi la maamum taalibe bàyyi la comme ni ko Abdul Xaadir Abdul Bàkk mi baaxee mag ñi dañuy dañuy dañuy nettali ñu ne bàyyi def daan wax ne Faat Jaañ bu fekkee am na benn sikk mooy bëgg naari gànnaar ak bañ meew daawut naan meew yi ñu bëri <laughs> ci kii booba nit ñi ñu si leen waaye moom mosul leen a daw moo tax bàyyi daan wax loolu ne boo amee sikk daal xanaa ñaari yëf la mooy bëgg naari gànnaar ak bañ meew loolu nag wax dëgg yàlla eh, tagg réy réy la yàlla yàlla fay ko ay ay ay jëfam peese ko ci gën ci hadiis ay eh, balance Cheikh Bachir kontaan na bu baax a baax a baax comme ni mu ko waxee cere bii moomu ko Hadj Mouhamad Zeynab ko moom Hadj Mouhamad Zeynab mooy moomu ko Alaaji Abdoulaye ko moom Alaaji lépp lu banqaasoo ci moom rek ci cër bi eh, li ngeen def bàyyi rafet na wax dëgg yàlla loolu lii delloo coloré la ak fàttali coloré ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant su ngeen ko defutoon itam kat kenn du wax lu tax parce que ñun jàpp nañu ñun ñooy sëñ Maamun sëñ Maamun mooy ñun te loolu amul benn sikk amul benn sikk dara tàggale wu ñoo moom dara mosu ñoo tàggaleeg moom te incha allahu taala itam dara du ñu tàggaleeg moom ba bañ koy fekkee bi yàlla xam yàlla gërëm yàlla ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant Cheikh Maay ñu ngi lay ndox euh, euh, ndokkeel ñu ngi lay gërëm yow itam ñu ngi teewlu di fàttaliku daaw waxtaan wi ñu fi def waxtaan wu am solo nga fi def daaw e, fàttewuñ ko ñu ngi xaar lu mel noonu ren ñu ngi nuyu xalifa bi Cheikh Mamadou Mahi Cheikh Ibrahim mu ngi ju tukki moom itam moog Cheikh Mouhamadul Amin eh, ñi tukki ñëpp yàlla na yàlla delloo si jàmm ñoom ñooñu àndat yàlla fajal leen seen i aajo des ñu ñun itam fajal leen suñuy aajo ñun itam yàlla mën na loolu ci barkeelu yàlla yi fi teew yëpp ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah